ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax ci ndigalam lañ nekk fii di ko ñaanal suñ kilifa yi nga xam ne ñoo bokk ànd bokk liggéey bi lu mel ne sëñ Abibu muy jëwriñu Touba ci kanam ak sëñ Abdoulaat Abibu ak euh, jëwriñu soxna yi muy soxna Bintu gis nañ ne Ndakaaru euh, ba ñu xoolee li li nga xam ne moom lañ fi collecté comme euh, jaayante ci Touba ci kanam dafa xawoon a néew ñu def benn organisation boo xam ne dañu buggoon jël def benn journée de massification ak d'intégration fexe ba nga xam ne biir Ndakaaru dañuy fexe ñëpp yëg Touba kanam xam Touba ci kanam moo tax ñu jël di ci tàbbal seen liggéey ci loolu lañ ne ah nañ organiser benn journée tudd bu Dakar biir dakaar journée boobu nag ñu jël nag jagleel ko soxna yi ginnaaw soxna yi nga xam ne Touba ci kanam ba dara doon doon ñoom ñoo ci nekk di ci nab nabi ba tey ji doon euh, ñuy gën a euh, collecté xaalis ci Touba kanam moo tax ñu tuddee ko bisub soxna Touba ci kanam <laughs> Euh, ni ki noonee tamit euh, ci wàllu massification maanaam mbooloo mi gën a takku loolu est-ce que jàpp ngeen ni tey bës bi mu ngeen am li nga xamante ne moom ngeen doon yaakaar ci loolee. waaw bës bi sax tey jii nii mbir mi wax dëgg yàlla am nañ ci lu kawe suñ jot ndax demoon nañ ba ci organisation fu mu toll ni xaw na déborder lool ndax gis nañ ko ndax bañ amee salle unité africaine jël nañ salle 4 avril mais teewut uti nañ yeneen chaise yoo xam ne dañu bëgg aménager ci hall bi nga xam ne lépp. en direct lay doon ci ci télévision yi ñëpp di ko seetaan foofu di ko teewlu foofu kon ñu xam ne ne woote nañ nit ñi wuyusi nañ ndax am na ñu jógee ba Touba ak région yi même am na ñoo xam ne jógee nañ à l'extérieur ñëw fii nii incha allah. ci wàllub aussi thème ak waxtaan ñu gis ne da ngeen fee andi aussi ay kilifa si yoonu murit waaye itam ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na wax ci diine l'islam tey lan ngeen ci jublu ci loole waaw ginnaaw bi nga xam ne jël nañ journée bi ñu teg ko dañ ne lan la ñuy def comme contenu comme programme journée bi ci loolee lañ xalaat. ñu ne ah dañuy organiser benn panel panel bi nag thème central bi mooy lu tax ma war a bokk ci Touba ci kanam lu tax ma war a bokk Touba ci kanam boobu ku mel ne docteur Khadim Bamba Diagne dina ci waxtaan wax ne aussi tamit Touba ci kanam nan la doonee ab ab ab royukaay ngir euh, euh, euh, développement mu am soxna Gueye nga xam ne ginnaaw soxna yi lañ ko jagleel ñu war a wax Touba kanam ban njeexital la am ci ci njaboot gi maanaam lan la mën a indi njaboot gi loolu yëpp namit suñ ko boole tamit am na beneen thème boo xam ne nan la Touba Ca Kanam war a bokkee ah ci développement Sénégal ndax gis nañ ne li muy def laaj luñ mën di ko def fuñ xam gis nañ ne am na foo xam ne lu mel ne état bi ñu ngi ko fay wuuta ci lu bari te loolu sëñ Touba moo ñu ko jàngal ñu nekk ko fi depuis sëñ Touba ba sëñ Modou Moustapha ñuy jaayante di def biir Touba bëgg Touba mel ne noo xam ne sëñ bi bëgg na ko loolu moo waral loolu moo tax tem yooyu la ñuy développé de telle sorte que ñun dañu xam ne lan moo waral Touba ci kanam lu tax ma war cee adhéré lu tax ma war a bokk ci Touba ci kanam tem yooyu ñoo koy tënk ba ku fi jógee rek day jàpp ne man nii kat ndigal la man mii tamit damaa war a sabab lu ngir bokk ci Touba ci kanam